dali nay jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy séq waxtaan wu yaatu ak Alioune Wade ñu gën koo xam ci di DJ Prince DJ Prince jamono ji tur wi daat nay law ci biir réewum Sénégal law ba bitim réew ndax kàddu koo xam ne ku ko dégg ci rajo wala ci télévision nga taxaw bàyyi ci xel journal bi di réew mi quotidien ak waxtaan wi nga xam ne séq na ko ak DJ Prince daat nay wax fi nga xam ne fi la jaaree mbirum animation ak ni nga xam ne moom la commencé daat nay wax ne ay fuural ak xumbal loole la ñu doon def bu seen équipe nawetaan gagné ne ci banlieue bu ndakaaru foofee la commencé fa ko mbir mi duggee ba mu dugg nag ci mbirum rajo daan nay wax ne rajo ci boppam maanaam moo ko yaraat ndax ba nga xam ne moom lay animé ay fural ak i xumbal nu ko neex ak la doon waxee waaye jamono ji am na lu bari loo xam ne maanaam soppi na ko ci moom wax na ci RTS gi nga xamante ni jamono ji fa lay liggéeyee nee na nag maanaam ñu recruter ko jële ko RTS du nekk loo xamante ni lu yomb lay doona wax na ci milieu animation bi maanaam nan la ko gisee ak nan la ko dundee ak li nga xam ne moom la ci rëccu digganteem ak Mbaye Gueye Faye loolee lépp daan na koy wax baax moom DJ Prince waxtaan wu yaatu la siq ak waa réew mi quotidien yéen i kaay gi di enquête xëy génne ñu réew mi yóbbu ñu diwaanu Mali di ñu xamal laan ñu Mali jamono ji maanaam pëccëxoo na ba maara detaal yi ndax mën nañoo wax ne Mali nag ci nërmeelu la jëm ndax amul benn institution boo xam ne ma ngi dox yéen i kaay gi di Les Échos ñu xëy fekk fa Alioune Tine la mu xamle nee na waxtaan wi nga xam ne moo dox diggante CEDEAO ak waa Mali bu dee nag ak lajjite am na fa loolee musiba ma ba kumba gu rëy lay ndax ñi nga xam ne ñooy waa Mali ñooy épicentre crise bi nga xam ne moo nekk ci sous-région bi te nag Mali su demee ba nërmeelu maanaam ci sous-région bi yëpp yéen kay gi du Sud Quotidien mu ñu xamal ñu Mali dee am na kenn koo xam ne moo jaaxal mooy Imam Dicko Imam Dicko nag wax na ñoom Macky leer nee na leen daal ñu rey moo ko gënal mu nekk ab traître yéen kay gi di Rewmi Quotidien xëy ñu xamal ñu Mali ba léegi ñàkku kaaraange ga ma nga mel ni tulleeg male am na ab militaire français boo xam ne daan boo xam ne doxoon na seen diggante ak groupe armé terroriste yi yéen kay gi de la sa ñu fa Abdoulaye Diouf Sarr la mu xam le nee na sénégalais bu nekk mën naa tëbaskee fa nga xam ne fa la nekk maanaam ñu wàññi déplacement yi ngir nag woppi coronavirus yéen a kaay gi du la quotidien mu xëy di ñu xamal nañu Abdoulaye Diouf Sarr jamono ji nag dafa bëgg a confiner askanu Sénégal yéen a kaay gi de Libération nee na woppi coronavirus ma ngi law ci réewum Sénégal ndax lu toll si ñaari fana am na ñetti téeméer ak benn ñoo xam ne amee nañu coronavirus am na ñeen fukk ak juróom ñu nekk réanimation yéen a kaay gi de La mu xëy di ñu xamal nañu askan wi yeewoo Casamance ci lu jëm ci tabaski gi ñoom nag ñoo ngi sàkku ñu ubbi frontière diggante Sénégal ak Gambie bu ñu ko deful mbir mi dina tar lool ci ñoom yéen a kaay gii di Vox Populi mu xëy di ñu xamalaan ñu ki gi ma ngi jub si waaye nag askan wi wéy di am ay jafe-jafe bu paasee xar yi nga xam ne ñu bari njort nañ ne dana jafe lool wala mu seer lool jamono ji nag pomme de terre bi ak soble si moo yokk ba maaradetaali ñi nga xam ne ñooy commerçant yi ñoom nag état bu Sénégal nañu joxat bi baaraamu tuuma ba tey ci biir yéen kaay gi ñu fekk fa docteur Cheikh Tidiane Dièye la mu xamle nee na inspection générale d'État dañu ko war a jëlee ci kilifteefu présidence bu ñu bëggee mu tëddee njaaxaanaay ak liggéey bi leer yéen kaay gii di Walf Fadjri Abdoulaye ci lu jëm ci maanaam candidat parti socialiste ci élection présidentielle 2024 nee na fa mu nekkoon démb ak bërki démb bu tey la fa a nekk te parti socialiste dina am candidat ci élection présidentielle 2024 yéen kaay gii di mu xëy di ñu xamal naan ñu projet assainissement ci Touba niki démb taxoon na Lansana Gagny Sakho mi nga xam ne moom lañ dénk ONAS ak directeur général bi ñu dénk wàllum inondation di Alpha Sidibé ak directeur général bu OFOR seeni ndaw defoon nañ ab délégation délégation ak ndiiraan dem Touba ngir gisee ak Serigne Bassirou Abdou Khadre ci lu jëm nag ci màggalub Touba gi wàcc soxal wàllum ndox mi ci Touba ak wàllum assainissement waaye nag niki démb Serigne Bassirou Abdou Khadre yàq na Lansana Gagny Sakho musiba ak mbelengaan daan na koy wax ne am na projet boo xamante ni Serigne bi moo ko sàkk woon ci njiitu réew mi di Macky Sall yow ñu sant la nga indi fi projet bi waaye nag projet boobu bi amul kenn koo xamante ni waxtaan nga ci ak moom waxtaanoo ci ak man te woo naa la ay yoon yoon waxoo ma dara loo xamante ni lu leer la maire bi di Abdoulaye Ka amul lenn loo xamante ni xam na ko ci xalif général bi di Serigne Mountakha amul lenn loo xamante ni xam na ko ci projet bi askan wi tamit xamuñu si dara man mi nga xam ne maa war a leeralal sëñ bi amul lenn loo xam ne wax nga ma ko ci projet bi te nag ay nit bu ñuy jëflante maanaam dañoo war a wegante dañoo war a respectante te nag jàppale njiitu réew mi soo koy def lépp loo xam ne maa ngi koy defalaaw askan dafa war a leer ci bopp askan woowu yéen a kaay gi du source a mu ñu xamal naan ñu Lansana a kaay moo dox diggante Chine ak publique ba léegi nii mbir ma ma ngay gën a tar mbir ma ma ngay gën a yokko ndax consulat bu Chine bi nekk ci Oustano maanaam dañu ko tëj loole nag waa Chine ñoom dañoo jàpp ne provocation la yéen kaay gi di sunu làmb xëy di ñu xamalal ñu combat guy gi rëg-rëk léegi tey combat bi taxaw ndax amoon na ay géta ngaas ak i jafeñ-jafeñ ndax guy gi ñaar fukki million ak juróom la ñu ko waxoon mu lànk ba tëdd sa naaj wa journal bi nee na ñaar fukki million ak juróom yooyu yokk nañ ko kon mbir mi léegi mu sotti